lii rek danaa wax ah lii laa wax de na gen na ngeen na patt de patt de loolu dana ko ñëpp dégg patt te nuu ci xasaay bi wakaana xam bi ay ca ci te boole ko patt lii rek danaa wax ah lii laa wax de na ngeen na ngeen na patt de patt de loolu dana ko ñëpp dégg patt te nuu ci xasaay bi wakaana xam bi ay ca leen ci te boole ko patt lii rek dinaa wax ah wax de na ngeen na ngeen na de patt de loolu dana ko ñëpp dégg patt te nuu ci xasaay bi wakaanaak xam bi ay ca leen ci te boole ko